need yooyee nar a am ca Médina ak ca diwaanu Tëngéej tribune yéene kaay ne ma local 2022 laa lay tegal nii ay menace nag moo am ci ndam li nga xam ni gëm sa bopp am na ko ci ndakaaru gii yéene kaayub dee média bi ne ma Médina leer na ni Bamba Fall moo am ndam daal di daan Cheikh Ba waaye nag ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir wëlbati victoire ba ndam la nag ñu bëgg koo jébbal Cheikh Ba gëm sa bopp nay du fi amee gaa yu bugaan gay dan yi ne diwaanu Tëngéej ji looloo fa nar a am sa Rufisque Nord am na ñaari bureau de vote yoo xam dañ leen fas yéene sànk annulé vote ba foofee ngir jébbal nag ndam la Ismaïla Madior Fall laaj bi sampu te 24 heures yéene kaay samp ko mooy ndax Macky Sall nag pexeem du éliminer nag Bougane Gueye Dany Sud Quotidien mel ni ku naan kon opposition bi dee ak fi réew mi toll barigo ci mbartal la buux mu dem ñàkk puus mu dem seen yaram tàng na moo tax it may ñu Macky Sall dara ña ngay xëccoog moom nag fa mu gën a méttee di ko yekk naka tembe ci jafe-jafey askan wi jaaree ko ci politique am waaye tam ci dundin ak ñongalu askan wi libération yéene kaay ne ma commune bu Touba moom la fa am mar day taali bulletin blanc yi ñoo fa am blanc fukki junni ak benn ak lu teg daal di woteel Abdou Lahad Ka Serigne Fallou Mbacké ci turbine yéene kaay ne Abdou Ka ci boppam moo war a tekki ndombal tànkam ndéem gis na lii nga xam ne def ko ci diwaaru Touba gaayaa ko bëggul direct news ne lu ci mënti am Louga moom ne ñu Moustapha Diop la ñu bëgg Serigne Mbuub diwaanu Kaolack tànn ko laas na ci diwaanu Pikine Abdoulaye Timbo moo fa am ndam daal di daanu gaayu wallu bi 24 heures yéene kaay mel ni ku naan ko juumoo ndax na coalition wallu am na ndam ci diwaanu Pikine donte nag boobu la coalition amoon nay jafe-jafe ci élection locale yi waral nag du lenn lu dul parti démocratique sénégalais seen cëggal guy la ñu ànd ak Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye Abdoulaye Wade dugalul loxoom ci les élections bokk gis-gis agi ak président bu jot na daal di PDS dem defi seen coalition bopp le témoin yéene kaay ne parti démocratique sénégalais day dafa deltu ginnaaw te loolu dafa leer ci élection locale yi la gën a fës beneenu jàngat l'exclusive yéene kaay ne ma mooy président Macky Sall ak élection locale yi neexu la dégg nag waaye Sall moo ca am ndam ci juróomi téeméer ak e fukk ak juróom ci ay commune juróomi téeméer ak ñaar fukk Sall ki gaayam ñoo ca am ndam fanweer ak juróom-ñeenti département Macky Sall jël ko ci ñeent fukk ak juróom benn bu doon élection présidentielle la l'exclusive yéene kaay ne ma Macky Sall mooy jàll ci wërgal bu njëkk ba bu doon nag élection ay député la moom mooy am la ëpp ci ay député yéene kaay bi ne ma ëllëgu Macky Sall mi ngi ciy loxoom ba tey de l'enquête quotidien mel ni ko sampub laaj ne ko bu dee ëllëgam mi ngi ci loxoom lu tax président Macky Sall di k bopp mënta ñàkk waaje dina daggi bopp ni ki démb xamal na ay jëwrinam moom Macky Sall ne leen premier ministre bi dina ñëw du yàgg xamal leen ni ku ci nekk lan la dénk gaawal def ko wane résultat gaaw mbaadu dañuy able lu ci mënti am l'enquête ko di jeene ma Macky Sall mbir mi la bëgg tëye ci loxoom fas yéene nag suul yeewi askan wi kan mooy nekk premier ministre ci nguuru Macky Sall bi le quotidien le quotidien ne taaxir lu leen de ndax Macky Sall day jël temps moom gannaaw juróom-ñetti fan ci weeru février ci la Macky Sall di xamle na kan mooy nekk premier ministre Dakar Times ne Macky Sall dafa daanu ci élection locale yi mooy dëgg buñ ko ko waxee buñ ko ko waxul loolu ko président Macky Sall nag lu dul kàddu yi nga xam ni yëkkati nañ ko ci diwaanu Mbuur te Mamou Salé defoon ko xam leen ni bu président Macky Sall ñàkkee élection yii jarul nag muy wutati dara ci réew mi waaye bu amoon ndam mënoon naa wuti ñetteel bi mandat ndam loolee l'info yéene kaay amu ko de moo tax muy laaj nag ndax président Sall njeexu nguuram tàmbaliwul Macky Sall nag fi ëpp solo ci réewum Sénégal loolee la ñàkk moo coalition mu di Ndakaaru Sigicoor Kaolack Tiwaawan Mbàkke Jurbel Yoof ak Touba gox yi nga xam ni moo gën a rëy ci Sénégal gox nañu président Macky Sall ëttu këru diine yi dal ne bëggatuñu président mbaadu la daloon Abdoulaye Wade 2009 moo yor président Macky Sall bu nee day dabuwaat it l'info yéene kaay dabu gi day du yomb ci président Macky Sall tribune yéene kaay ne ma Birahim Seck bu forum civil ma ngay wax maire yi falu yees ne leen wax amul dara amul liggéey rek source aane ma booba Racine Talla day ma ngay xupp Ahmed Aïdara ma ngi koy menacé ci diiwaanu waay ne ko dinañ la wan jaxaat na ma duñ la may dara critique yéene kaay ne ñan wan jaxaat na ma kay moom moo di takk deru réewum Sénégal yi ca Kapa ca Gambie foofee lañ leen tegal ndëgg sërëx ñoom suñu jàmbaar yi yéene kaay bi gaay yu Salif Sadio yi nag liñ leen tere i garab loolu moo leen fatt ba ñu dal ci kaw suñu takk der yi en tout cas ñaar ci suñuy jàmbaar faatu nañ ci juróom ñeent ci suñuy jàmbaar ñu téye leen ba tey laaj ba samp mooy lan moo tax waa gàmbi seetaan ba attaque boobe am la soleil yéen kaay ndongo yi dey ñu ngi ci njàq rek tiit gréew yi nga xam ne dañu koo dëkkee ak ñoom looloo tax ñuy tiit ren ji njàng mi du ñoŋ ci réew mi laas yéen kaay ma ñay liggéey aftu it ña ngay boo maytul daañu soobu ci gréew sursu a xamal ma ne teer bi day jafe yu métti la am saa si tembe ma ngay paan ma ngay yéex yaa ngay sensé train ca digg wayaas ga réew mi ko di jeene ma Moustapha Niass ak ñamu àndal ña ngi leen di tam de la ñu lànk ne loi bi criminaliser ngóor jigéen duñu ko amal ci réew mi loolee lañ leen tamee l'exclusive ne ànd sàmm jikko yi juróom-ñeent ci député yi nga xam ne ñoo lankal boobu boobule loi la ñuy naqarlu seen doxalin fas yéene amal mobilisation ñaar fukki fan ci weeru février tribune sport ne leer na ni suñu gayndey day quart de finale diggante Guinée équatoriale lay doon dibéer bii la ñuy amal boobu la jongante Ismaïla Sarr pare na ngir bokk ci boobu la jongante laaj ba samp kay mooy ni ndax Sadio Mané ci boppam dina bokk ci équipe bi quart de finale yi libération yéene kaay ne Dieynaba Ndiaye ma ñu jiñ moo lakk maam ak sët ci diwaanu Kër Massar te dara waralu ko lu dul politique ubbi nañu ab information judiciaire ci moom te boo ma